L'eau multimédia moi l'un des émission assalafou Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane angle Paul Oldakar. Dakar L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires, accessoires ci ay y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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أم بكتلول دلن دلالة تسونو جوتاي السلف مع القرآن مجن نانيو دون دي القرآن تسين كرغينغ خامنتيني كيبكو يسافو القرآن أم غتيتر ميلا ميزو كورا أو سنغال waaye di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy Lo multimédia ñoom ñi nga xam ne ñoom gunge ci eh, jotaay bi ñuy jaay lépp lu jëm ci jumtukaay wane maanaam lépp lu jëm ci électronique eh, ñoom wax dëgg fi yàlla ñu ciy jaay ay qualité yu baax a baax ñu nekk fële ci Sandaga ku woote ci numéro yi ci suuf di leen jot jotaay bi passé ñu eh, duggoon ak yéen ci tomb bu am solo ni yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmmee alquran ci kaw suuf ñu andiloon leen ba ca jiitu mooy yent bi sallallahu alayhi wa ñu andi laay yu tedd yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ca surat al qiyama tey nag ñu andi ñaareelu tomb ci wane ne nan la yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmmee alquran al karim waaye awee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla buur bi subhanahu wa taala nee na ca surat al aala sa nuqri'uka fala tansa la ilaha illa allah sa nuqri'uk man yàlla dinaa la jàngal maay jël waxyu bi def ko ci yow fala tansa te doo ko fàtte la ilaha illa allah lii neex na de yàlla فتكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد برفع مشقة استزهار القرآن وحفظه وحفظه له بقلبه أو في قلبه يلا دا ديكوي القرآن الكريم تخلم خولم نيكو رك دوتل لا إله إلا الله موتاخ لا يجي سنقرئك فلا تنسى سرين داري خمنا نكو بو باخا باخا باخ امنا يو ام سولو ينتي ديفال دونغاي waaw parce que moo tax daara daal daara la daara daara daara dara la tabaraka arrahman ndax mokkal téere bii dañuy ñaanal donga yi bu baax a baax a baax a baax a baax sanuqri'uka fala tansa xoolal yàlla la mu assuré yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko du fàtte parce que lan dafa war a sàmm li nga xamante ne moom mooy hadihi al amana al azima muy alquran al karim ne ko lu dugg ci sa xel mi lu dugg ci sa xol mi dootul génne dootoo fàtte laa ilaha yal ko yàlla buur bi subhanahu wa taala defal yal nanu ko yàlla buur bi subhanahu wa taala defal tey ji soo xoolee asahaba anhum ajmain xoolal ñooñee jëm nga xamne biñuy jàng sax ñom ay mag lañu so ci génné ñi nga xamante ñom ñoo nekkon ndaw ci jamono jojja muy abdullah ibn abbas abdullah ibn umar abdullah ibn amr ibn as way azayd ibn thabit way xol sahabi ak liñu mëna mokal so xolé ci téré yi ñoom seeni aqabil fesna li nga xamante moom moy téré yi fees bibliothèque yi kayfa hafidhu hadha kullu su ñoy ci taabiin yi taabiu taabiin yi xoolal ku mel imam malik kam min al ahadith xafid xoolal ci aimmatu al سبحان الله كيف حفظوا كل هذا خولتي إمام البخاري كم من الأحاديث حفظ خولتي إمام الشافعي خولتي أحمد بن حنبل خولتي أبي حنيفة خولتي الليث لكن الله سبحانه وتعالى استعمل رؤوسهم وعقولهم وقلوبهم وصدورهم لحفظ هذه الأمانة لحفظ هذا الكتاب لحفظ هذا الدين يلا دفعهم أي soldat يوم xam ne ñoom وقت ونك waxtu xoolal yéen a ngi ni jóge ci concours bi xoolal ay donga xale yu ndaw laa ilaha illallah mokkal téere borom bi subhanahu wa taala kam min al ahadithi yaxfaduun yal na nu yàlla boole ci yooyee soldaar dañuy jàng tuuti rek daal di mokkal lu baree bari parce que yàlla moom moo sàmmal boppam téere bi moo sàmmal boppam haada diin moo sàmmal boppam haadihi al ahadith nga xamante ne wax dëgg fi yàlla dañu koy mën di mokkal di ko tadaawul ba yowm al qiyaama kon yàlla buur bi subhanahu wa taala ñaareelu tombe bi moom moo ne yonent bi sanuqri'uka fala tansa man ma lay jàngal do fàtte kon loolu moy ñaareel bi wonene yàlla yonent bi bi waasitati nabi sallallahu alayhi wa sallam xafida hada alquran ñettel bi moy len hirsu nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hifz alquran alkarim wa mudarasatihi fi kulli awqati yonent yàlla Muhammad ni mu xëre won ci di tathabut ci mokalam waye diko mudarasa diko jàngat wo sahaba yi lele mo wokene ne ko kay tari waaw iqra alay jàngal ma deg ha wala le mu tok ak ñom di len fatali wala mu woké ne ko ay ay sàngam ay sàngam ngir len muy tathabbut ci len mokal gi nga xamne mo mo nekkon ci ñom fa kana yuhyi al llayla bi tilawati ayati al-quran fi salaati ibada yent yàlla Muhammad dan dundal ay guddem ci len di nafar al-quran toog di naafila alquran kamil gépp moo tax waaje waxoon ne zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamaahu durrami warami ca burdatal madix mu ne man daal tooñ naa sunnay ki nga xamante ne moo daan dundal guddiya di dundal guddiya ba nga xam ne ay tànkam daal di néewi laa ilaha illallah ba ci mag ñi ba ci mag ñi soo duggee ci mag ñi da gis ñoom dañuy naafila roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma nahnu al an la naqumu al layla illa al di jóg guddi كيف لا ننام مبكرا لغي روسنا نيو نيلو افان مينوي لغي كولا و 22 سانغ تد مون لا غينار غا امنا تي ньо خامتيني خامو آداب الاتصال خامو يان وقت لا نيو و خامو كي ني دا غاي تد ب 23 مينوي غا غيس تليفون بي سوني تي كو خامني دوي ولا دارا وا ليلي نيت ولا باغا ويو كو داما لا نام لو سيو مباغ ني سبحان الله سما سيرين بما جانغال حفيظه الرحمن وقت ونك لنكو دان ديغ تي دارا جي موم نافله ba waxtu wii ma lay wax jëm na mag lool waaye soo xoolee tànk yi da ngis tànk yëpp daal di néew yi demoon ba toll ci médecin yi ne ko nga wàññi lii mu ne laa laa ci moom la nu xaw a ne benn bi médecin yi teemoon ba toll ne ko foog nga bàyyi wax te moom waxam yëpp day xëy di jàngale alquran al karim mu ne leen kon wax dina ma rey parce que wax jooja bañ ko koy wax léegi ñun ay ndaw lañu te ba léegi tey la gën a wér alhamdulilah ataala allah umra wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism kon nga xam ne tey jii li ma laa taqumuuna layl li ma laa naqumu layl te ci jóg guddi la gaayu yàlla yi rawante de laa ilaha illallah njëgu aljanna njëgu xurul ayni ci aljanna mooy qiyaamu leyl inna almuttaqina fi jannati wa uyun axidina ma aataahum rabbuhum laa ilaha illallah parce que lan kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun ñoom daanuñu nelaw lu bare bare ci guddi gi yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا كون يونتي صلى الله عليه وسلم دا نافله غودي كون الحفظه قراءوي جاي مكل القران الكريم مكل تيربي كون نانيو نافله تيربي يا عائشه نيني بس يونتي صلى الله عليه وسلم قام النبي ليلا بايا غودي لم يونتي بي نيك دي تدبر بين لاي القران الكريم ديكو بامو دي يركع بها ويسجد دي تي دي تي سجود كوم نيكو يا عائشه نتي رضي الله تعالى عنها كون يني مكل القران سيرين داري نانيو غور غور لو باخا باخ تي ليغا خامتيني مومو دي لان قيام الليل واي وتدبر معاني يونتبي صلى الله عليه وسلم دون تشامبر ليغا خامتيني موي اي معنى القران الكريم حتى تفطرت قدماه الشريفتان من كثره القيام امتثالا لامر الله عز وجل القائل يا ايها المزمل يونتي ال محمد دادي تد ما دينا غا تد جامانو سيد غيس غا سايو ديمي با تد تي آه، جولي غو غيوي كي غنا ديغر فيت سي ادونا موي كي تد تي جولي غو غيوي تي مو لير لا ني يو غودي غي خامو مون غا تد دي ki gëna dëgër fit moy ki tëdd te julli wo gëwé man lool nan la ko doomu adama mëne soxna yi wuyu leen ma nan la doomu adama mëne tëdd te julli wo gëwé te li wérte wor bala ngay tëdd su féké jullit nga bala ngay nelaw di sa xel mom xam nga so tëddee bala ngay nelaw sa xel fu nekk lay daw ci journée bi lim lay ñëk wax sëñ bi julle go gëwé de seetaan ne la ah كراو نينكو ko këmu fële laa ilaha illa allah rubbama tamuutu fi hada al layl est ce que xam nga ne mën na am wala yàlla yàlla julli wo tisbar soxna suñu xewle sen juuru xew suñu xasse ba def maquillage duñ julli julli wo dañu jóge ci xew ba xam nga jess neer yek mbas dafa tàng suñu paré sangu rek te la ñuy tal parce que dañu may ba may dépasse bi feulé talatuñ dara julli sax taluñ ko nga tëdd noonu la ilaha illallah yow sama mbokk bul tëdd mukk te julli wo geewee bul tëdd mukk te yaangi am ay bori julli rubbama tamutu fi hada layl mën naa am guddigi tay moy sa mujjug guddigi منا أم جودي جيتي موسى موج جودي بولت الدالة جاي مك بولت الدالة وقت جولي بو جولي والمك جوجل نجا جولي جي قوم ينتبه دادي تد جولي نلبم وايف مو يدلو يالنكو يا أيها المزمل أي أيها المغطى يومي مورو نغا سانجو يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر ذنوبه غفر له ذنوبه كله يلا بالنا اي بكر waaye yàlla ne ko qumil layla illa qalila jugal naafila guddi gi yépp ba mu des lu tuuti maanaam soo ko xaajee ñett ñaar yëpp naafila ko nisfahu wala sax nga naafilal ma génn wàlla guddi gi awin qus minhu qalila wala soo ko xaajee ñett nga naafila benn bi waaw un tiers bi laa ilaha illallah waaye nag aw zid alayhi wala nga yokku ca sax yàlla ne ko naafilal guddi gi yëpp ba mu des lu tuuti wala soo ko xaajee ñett wala nga naafila ma genn wala guddi gi wala soo ko xaajee ñett nga naafila benn bi wala soo ko xaajee ñett nga naafila ñaar yi waaw aw zid alayhi waaye warattilil qur'ana tartila nga jàng alquran ci lépp loo xam ne teuda wa nga jàng alquran génne li nga xamante ne moom mooy leen ahkaam yi maxaarijul xuruuf yi moo tax ñëpp war cee góorgóorlu foofu itam amat message boo xamante ne ñu ngi koy lancé képp ko xam ne yaa ngi góorgóorlu di jàng alquran al karim nañu góorgóorlu ci lépp loo xam ne mooy alquran ñu jox ko gëddam góorgóorlu ci maxaariji xuruuf alquran dafa am nun koy jànge góorgóorlu dem jàngi ko bu baax a baax a baax te bu ci kenn xeeb sa bopp xoole kii rasulillah moom mooy ñëw di naafila alquran ngir gën koo saxal ci moom waaye ngir gën koo rataxal ci làmmiñam kon fu ñu nekk rek làmmiñ dañ koy entraîné ci li nga xam ne mooy téere borom bi subhanahu wa taala koy jàng di ko yàq yaa ngi am bàkkaar kon loolee ñu góorgóorlu di ci soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp parce que yàlla dafa ne yonent bi sax ورتل القران ترتيلا فلي مونيكو ورتلناه ترتيلا نكو يالا ترتيلا تاك واتيغا مونيكو جوتلي كو نون ورتل القران ترتيلا كون كيب كوكاي جانغ ورتل القران ترتيلا غوغي دا فورا تاخاو تي يو kon bi mom mo nekkon ñettel bi nga xamantene day wone ni yàlla sàmmee alquran alkarim ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muy xersun nabi ni yonte bi xëre won ci diko nafar di ci nafila di ci def lépp inshallah taala jotay yi di ñëw ñu ñëw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nam daan nafari alquran ak jibril ak namu don tok di jangalel bopam alquran sahabi yi ku nekkoon seen ustaaz annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaa lahu min sharaf ya lahu min karam من استاذك من هو شيخك النبي صلى الله عليه وسلم كون بوكي لي li سوني جوتاي suñu jotaay القران تي ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Old Dakar.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 Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion